والقلم وما يسطرون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi nuyu mbokk yi fi teew te di leen ziyaara di sant sunu boroom nag ci bis bii ni ko mbokk yi waxe ñëpp di ci ndokkeel alxaaji sëriñ Seck ak mbooleem ñi mu àndal liggéey bi ñëpp ak mbooleem ñi ko wuy si Euh, taxawaay bii dafay taxawaay bu am solo boo xam ne mën nañoo wax ne ñi ëpp ci ñiy jariñu ci alalam mooy njabootug daara loolu ñëpp mën nañ ko seere ab liggéeyam mu jagleel ci daara pàcc bu tollu nii ànd kook ñoom ca biir ak ca biti yàlla yàlla barkeel ko ci barkeb alquran kon incha allah ñu fas yéene tàbbi ci wolofal yi xam naa bayit yu gàtt la ngir sàmmoonte ak waxtu wu ñëpp bokk ñu fas yéene def rek ay bayit yu gàtt incha allah bismillahi rahmaani rahim man wuy si naa la bàyyi sëriñ seen bis bi làq nay njariñ yaatal na mbind ci xereñ dekkal na bindi alxuraan man wuy naa la bàyyi sëriñ seen bis bi làq nay njariñ yaatal na bind ci xereñ dekkal na bind mbindi alxuraan mbind mi tuuti kon mu saay xalima damm daay seey te mbind nag waru la naay moo tax ñu jot ci alxuraan mbind mi tuuti kon mu xalima damm daay yi seey te mbind nag waru la naay moo tax ñu jot ci alxuraan budul ko nag bind ba tey duñ jot ci njàngaleem ñëwey xam nga ne bind tax ba tey nuy jot ci téere alxuraan fun tuddee téere bind tax sun bind loon téere du sax waree fu koy bàyyi mu laax nan fonk mbindi alxuraan àllama tekk bil xalam kuy jàng war na caa xalam sug wattu rek doyoon du lim xalima laajal alxuraan joow leen xalim yi loy yi feeñ bu dara damm ak di looñ mbind na reew te bu mu tooñ mag ñaa ko wax ci alxuraan tey c 3 teg na daa te woona bépp candidat ngir ne ñu yaatal mbindi daa ci jëpp daaray alxuraan te c 3 teg na daa te woona bépp candidat ngir ne ñu yaatal mbindi daa ci jëpp daaray alxuraan internet daari cosaan war nañu delluwaat cosaan njurbel ba kokki gaaña daan daaña ñu bind alxuraan gis nañ fi ay kaamili maam yu kenn du folli fii ba saam te ñépp it xam nañ ne daam fonk na mbindi alxuraan société bii koy taxawal woo ko def woote ko def ci ay alal gox yépp jóg di ko ñëwal taaral na mbindam alxuraan te c 3 tax na tey donga yi sot xalim yu xay di fàggu daa di bindi loy bis bi sagal na alxuraan alal julew ji mu ci def yelloon a kañ ci jooje jëf kon c 3 jëf jërëjëf yaatal gi mbindi alxuraan allahuma salli ala rasulillah wa alihi wa sahbi wa sallam tasliman jërëjëf Ahmadou Baas ñu tàccu Ahmadou Baas bu baax a baax gannaaw loolu nag euh, téere bi ma yor ab yóbbante sëñ daam jaane mii la mu nekk marché sëriñ Mor Diop mi nga xam ne njabootam ñoo teew ci bis bi mhm. mu liggéey ko muy marché bu am solo téere baa ngi foofu fi moom képp koo xam ne am na ci yitte rek mën naa ñëw foofu wecc ko ko fi sëñ daam jaane incha allah muy marché bu am solo nag bokk ci jëmm yi doon taxaw alxuraan jërëjëf asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf sëñ Mbàkke defe naa dégg nga baas bàkk yu am solo yooyu nga xam ne indi na ko waaw waaw jaarale ko ci wàllu taalif macha allah te xamoo way itam day kon ma ngaa wax kii suñu réalisateur sëñ Mbàkke mu am bu mu waajal mhm. ah, vidéo Serigne Mor Diop parrain bi sëñ Mor Diop moom nga defee itam ni mu wax si bind macha allah ci taalif yi am na solo xam nga way moom dafa dafa yéeme ina mina shehri la hikma way boo ko déggee dafa am lu mu lay lu dafa am fu mu lay yóbbu ndax da lay mën a dajaleel eh, ay maanaa yu bari ci ay bayit yu gàtt ku ne xam na ni xutay la bi ñu reyee Nadar ibnul Haris eh, bi mu ñëwee di jéggulul bëgg a def ay marsiya pour jéggulul ki ni baayam la wala mbokkam Eh, bi yonente bi jàngee bayit yi dana ko suñ ko jàngoon te te te fekk réyaguñ ko de danañ ko bal waaye na fekk na rey nañ ko mën mu nadar ibnu xaaris kon day xam ne way yàgg naa jeex yi dal sëriñ Mbàkke mhm. muy lu am solo rawatina fànn gi mu ko defee ci mhm. wolof eh, mu tudd taalif eh, nga xam ne ay message da ci daan jàll bokk ci xereñ gi nga xamante ne itam yàlla defal na ko ñooñ alxuraan mhm. بنعمة ربك بمجنون